macha allah ministère élevage macha allah yamb yi solle Touba ñu ñëw di ko defar si ñu ngi gaa yi ñu ngi Abdoulaye Seck Sadaga moo leen fi indi. monsieur le ministre euh, sénégalais ñu ngi leen di wan fii ci Touba euh, dafa am kër goo xam ne yamb yi dañ ko nangu ay yamb ñoo fi ñoo nangu ko wax ministre euh, élevage euh, ñu yëgal ko ko rek automatiquement ñu yebal ay nit pour ñu ñëw dindi si ko euh, ñu ngi nii di ko jàpp si wax dëgg yàlla ñu ngi koy félicité di félicité Diawara bi nga xam ne moo yor loolu te ñëw di félicité it nag maire Touba parce que wax dëgg yàlla biñ ko yëgee biñ ko ko waxee wax dëgg yàlla jàpp na ci taxaw ci quoi yëg na ne lu am solo la te yëg na ne maire bi moom lañ ko def solo la parce que lii rek lañu soxla ci askan